Abdoulaye Tim ci Rewmi li nga xam ne mooy concert des casseroles yi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi def nañu ko loolee lu réussir la te loolee bokk na ci li nga xam ne dafay ñoŋal démocratie te nag Macky Sall ci boppam na ko leer ne bu jàppee ne dafay jël police jël jël gendarmerie maanaam di tiire ci askan wi di leen di teg loxo di leen di xoqutala di leen di nag torturer bu jàppee ne loolee maanaam dina wéy ma ngi nax boppam moom Macky Sall te nag lépp Macky Sall la moom mi nga xam ne moo violé li nga xam ne mooy loi bi maître Abdoulaye Tine ngi ci réew mi quotidien ñu laaj ci recours bi nga xam ne dugaloon na ko cour suprême ci lu jëm ci wàllum parrainage bi nee na dara bettu ko ci amul lenn loo xam ne maanaam dina ko bett ci liy xew ci réew mi moom maître Abdoulaye Tina ma ngi ci réew mi quotidien waaye nag nee na da def daal li nga xam ne mooy waru garaam yéen a kaay gi di sud quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Déthié Fall mi ñu tegoon loxo moom Mame Diarra Fam ak Ahmed Aïdara Tidiane dana ñu leen daal di atte audience spéciale a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall dafa mel ni ma ngi xalaat lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat ndax nag ci biir Benno Bokk yaakaar ak ci biir APR amul kenn kenn koo xam ne Macky Sall mën na laa tànn ngir nga wutu ko loole nag moo tax Macky Sall jamono ji dafa jaaxle ba maara de tale li nga xam ne nag moo daloon Alassane Dramane Ouattara mën na ñoo jàpp ne lu mel noone presque moo dal Macky Sall ndax nag Alassane Dramane Ouattara ca diwaanu Côte d'Ivoire ba mu jëlee premier ministre am ba bëggoon koo jiital far mu génn àdduna loolee bokkoon na ci tax Alassane Dramane Ouattara daal di forcé Macky Sall nag moo ko teg ma waaye li am ba des ñoom coalition Yewwi Askan Wi leer na leen ne ku fi Macky Sall teg ñoom mën nañu ko gagné journal bii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Lat Diop nee na 29 juin bi nga xam ne Yewwi Askan Wi nee nañu danañu amal manifestation fépp ci Sénégal ñoo ngi leen di xaar te nag état bi si boppam maanaam du am lan lu mu ciy deltu ginnaaw wala lu mu ciy yox-yoxe yéen a kaay gi di alerte nee na Karim Wade noppi gi nga xam ne noppi na ko maanaam ci tension bi am ci wàllum politique loolee jaaxal na kaay yéen a kaay gii libération ñu xëy fekk fekk fa Serigne Assane Mbacke coordonnateur appel 221 ñaawlu na bu baax a baax Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacke mi nga xam ne ñu koo dugal ci kasu bi ak ni ko waa coalition Yewwi Askan Wi seetaane ak ni ko waa coalition Wallu Sénégal seetaane moom Serigne Assane Mbacke daat nay wax na Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacke jamono ji nag ma ngi dund lu méttee méttee méttee méttee méttee ci kasu bi di sàkku nag Serigne Mountakha Mbacke Bassirou dugal ci loxoom ngir ñu daal di koy mën a libéré yéen a kaay gi di ko di ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique ca diwaanu de France maanaam ŋàññi nañ doxalinu Macky Sall yéen a kaay gi dina vrai journal nee na France dugg nañ nag ci crise politique bi am ci Sénégal réew ko di jeex na ko may ma yeggale Olivier Faure mi nga xam ne mooy premier secrétaire du parti socialiste français nee na nag démocratie bu Sénégal dañu koo piétiné maanaam dañu koo dëgg tey dañu koo nappaaje li nga xam ne nag mooy àq ak yelleefu askan wi jëm ci wàllum doxam ñaxtu loolee dañu koo nasaxal ci Sénégal liberté ca Fall mi ñu teg loxo teguñu ko fenn Mame Diarra Fam ak Ahmed Aïdara ñooñee dañu leen a war a libéré du samay kaddu Olivier Faure mi nga xam ne mooy premier secrétaire du parti socialiste français moo ko xamle Jean-Luc Mélenchon moom tamit yëkkati nay kaddu nee na répression bi nga xam ne moo am Sénégal tegewul fenn arrestation jàpp yi di jël di dugal ci kasu bi ak lu jëm ci wàllum liberté constitutionnelle yi nga xam ne jamono ji maanaam dañu koy saax-saaxee ci Sénégal di ko dëggaatee di ko nappaaje loolee tegewul fenn Jean-Luc Mélenchon moo ko xamle ba tey ci journal bi na ñi nga xam ne ñuy waa coalition Benno Bokk Yaakaar tontu nañ leen yéen a kaay gi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidjana nee na Macky Sall yow daal noppil rek noppil rek maanaam del muñ daal yéen a kaay gi de enquête Macky Sall nag ca Tiwaawoon nee na musta wax ne marabu yi kilifa yi diina yi ay simple citoyen lañ wala ay citoyen ordinaire lañ Macky Sall nee na musu ko wax waaye nag samay kujjee ci wàllum politique ñoo yàq samay wax Tiwaawoon ñoom woote nañ dialogue yéen a kaay gi de L'Observateur ak Rewmi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu bébé Aïda mi nga xam ne moom la ñu sàccoon ñaar fukki fan ci weeru juin ca Pikine gis nañu ko yéen kaay gii de la Tribune nee benn jigéen bu tudd Sira Dramé moo ko jëloon dugal ko ci appartement ma journal bii di Vox Populi ak Libération nee na Sira moo moomee nag bi ñu ko enquêté nee na dafa am ñaari yoon mu yàqu yéen kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar nañu nag lu jëm ci defaraat corniche ouest bi Macky Sall génne na lu toll ci vingt et un milliards te jamono jooje hôpital bu Jaxaay fukki at benn a ngi nii mënut a fexe ba yegg hôpital bu jaxaay fukki at ak benn mënut a fexe ba yegg te lu ci milliard trois cent moo ko yeggale Macky Sall mën a jël vingt naan damay defar nag ab corniche xanaa bala nga nay naam ne fa yéen a kaay gi dee sar xëy dañu xibaar naan ñu Casa Sport le doublé historique du Casa Sport noonee la ko journal bi bindee ndax nee na Casa jël nañu coupe du Sénégal jël nañu championnat bi yéen a kaay gi di sunu làmb ñu koy fekk fa Abdou Bakhoum manager Ama